journaliste yi man de jigéen laa bu ragalul nag góor politique laa bu ñeme fi ma jëm bokk APR nëbbuma ko di identifié woo Benno Bokk Yaakaar te rëccuwuma ko jiital président Macky Sall su ma wàccul du ko wàcc boobu ba tey nag dégg ngeen jàppal jéegi indil jéegi yéen nag yen lay waxal quatrième pouvoir de mon pays jugez leen par vous-même Rarement na ci plateau yu ma taxawul fi ku am lomay waxal tegal directrice nationale la lan mooy directrice nationale ko xamanteni amul sax budget de fonctionnement bu 100 100 millions suma ko waxee 100 millions nag xeebal ma kenn mais damay wax selon les textes nekuma directrice générale amul benn këyit buy génn muy marché muy engagement té du jaar sidage. daaj aw sax accès si six budget ci ministère bobu ndax amna ci droit ndax ordonnatrice de dépenses là, responsable de programme là, ma responsable ma donne responsable programme économique et social et solidaire du Sénégal awuma ma accès si six budget donc lepp lu ma décidé lépp lu ma def dafa am buntu ak buntaat yu muy jaar ma assumé ko nak tay jii

ci ñu liggéeyul lu mat fukki at ak juróom waaye man de Diop yële naa taxaw ni képp kuy organe de contrôle bu ma woo pour reddition des comptes daw ma daayu ma tukkiw ma xanaa ma am soxla doxaat ko ñëwaat Sénégal gii laa dëkk Sénégal laa bokk jàngi à l'étranger ñibbisiwaat bu ma neexoon toog foofu waaye dama ni dama engagé wu pour politique te dama koy assumer